Bienvenue à Dakar Sénégal bienvenue chez Dibiteri Lomboté kër Cheikh Abdallah Fall numéro un lañ ko duppee ci képp kuy jaay tey lakk yàpp fii ci Dakar mani yàpp bu nooy nepp ñor xomb ba ca yax ba moutarde bi wër ko sauce vert bi romb ko soble bi sànnee ko ca kaw kaani gi ci wet gi xet gay gilli mburu mi tàng jër xam nga ni dibi bu neexee nii ci la mbote nga ko mën a amee waaye yéen ñam ngeen yàpp saaf bi ñi ko ñam ñëpp nee na nañu yàpp saafu la mbote ak bu tabaski amul différence ey eh, gaay ñi mbote mbote lu bari nañu lool waaye dibiteri la mbote ñaar la fii ci Dakar jàppal am nañu dibiteri la mbote kër Cheikh Abdallah Fall chez Papis bu Serigne Sall Médina rue 11 angle 8 téléphone 77 036 50 88 ou 33 822 13 88 am nañu aussi Mamel Kër Jaraaf chez Papis bu Serigne Saliou dibiteri Cheikh Abdallah Fall téléphone 77 036 50 88 ou 33 865 31 09 alors chers clients précisez bien ci zone bi ngeen nekk ngir ñu mën leen indil seen livraison ci nu waaye diggante jaga doole ak dut saale gis nga léegi doole njaga doole xool ko yëngal bopp bi ne ko saaga. non dafa ree njaga doole dafa ree. non non non ne ko saaga yàkkam te xeex la te bu ñu taxawee da ngay xam ne macha allah waaye diggante Njaay Tine ak caatu ya caatu yoof coow laa ngi noonu léegi nag li nit ñi wax tugale de teew ñuy nataal du ne kenn mooy favori waaye am na ñoo xam ne tànn na ñaari nit ñooy finaalu ndax ñi ci def dinañ ko nangu loolu dama koy bàyyi amateur yi mais en résumé raay programme bi doon la tëddee ñu ñëw nag ci daj dëpp bi diggante ñaabu ndaw ak Sarko. non tegal sa loxo foofu. Sarko xaaral ma ñëw xaaral ma ngaa def ma ñëw maa ngi ñëw maa ngi ñëw. dama bëggoon dama bëggoon xaaral xaaral xaaral xaaral. non bu sa bàyyi am tànnee baal ma yëngu rek maa ñëw baal ma ñëw xam nga Sarko dafa bëri moo doon Anta lebay bagaasam dem ga dem dem États-Unis daje faam ay nit ñu ne ko yaa ngi baale yaa sa xaalis yàlla nga xam fii vacance rek moo la fi war a andi mais waroo fee ñëw fi dóor waar mu takkaat wari sam dellu si waat ñu jox ko may guy gi mbaru jéey keroog ba muy ñibbi dañ koo nangu yóbbu ñu jox ko maay ma ñoom keroog ba muy ñibbi yóbbu ñu jox ko aada faas keroog ba muy ñibbi dañ koo nangu yóbbu ko jéen kay rek keroog yóbbu ñaxamu ndaw moo it na ci ay dynamique de victoire ñu ne ko est ce que war ngaa mën a daan bàyyi ma ñëw nag ci yéen yow Zarko di jël ñaxamu ndaw moom it mu wax la li li garga de waxoon rek dimanche boo toog bëree woo ko yaa ngi perte àddina fi xaar doole ñu la fi xaar la am problème mu waaye nag xale bi di xale boo xamante ne nii dañ leen jël ko léegi moo gën nga bàyyi ba expérience bi ñëw raadu tool ba ñàkk ma bàyyi a nga doxal. Euh, jërëjëf alaaji Max Mbargane ngeen jëf mbokk euh, boo déggee Max Mbargane di wax da euh, parce que moo nuur ba ndaanaan waaye kalaaf dafa baax loolu Max ci làmb parce que dafa yàgg génne ay champion tey ndaanaan yi nga xam ne tey ñoo nekk ci làmb ji di jouer les premiers rôles ñooñu ci CRAF la ñu jaar moo tax ñu agsi fii ñu agsi kon tey yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci CRAF bi ñu bëgg rek ngeen xam ne yéen a ngi dem ci compétition bu mag a mag a mag ngeen gën fonk compétition bi gën a fonk aussi préparation bi te xam ne mbër mu ci génn jël ci première ba jël final bi mën na la yóbbu fu sore sore sore sore waaye Max dama bëggoon nag euh, ana micromobile bi ñu jox ko Modou Anta bu Gaston production mu ñëw fii nag ñu commencé waxtaan ak mbër yi Modou Anta waaw yow euh, xale nga mais car macha allah sa loxo dafa set connaissance bi aussi Sénégal yëpp rafetlu nañ ko ñu bëggoon nga ñëw jël micro bi euh, waxtaan ak mbër yi ba ñu àgg ci kalaaf bi foofu nag ma bàyyi nag alaaji mag sa mbargaan jóg wax ak ñoom aywa na biir waaw. bi. waa kër Serigne Aliou Diouf Lambaye leen ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di yeesuwaat jébbal bu baax a baax di sàkkuwaat ñaan di nuyu assistance bi yëpp di la nuyu garaaraay di nuyu suñu père Max di nuyu Abdoulaye Blay Fatigaaro di nuyu suñu PDC Makan Mbéy di moom kon nag bu ko defee ñu dugg ci li nga xamante mooy programme bi. Aja Assane yóbbul ma bugaan

bisimilah bisimilah moo dee la maa ngi ziar ñëpp di ci am tool ñëpp waaw di ci kër di nuyu waa Bawol di ziar pour waa Yarax bi ma jógee di nag ñu ma àndal ci suuf ñoom Jibi Baye sama grand ñoom Koso soo ñu ma nag ñëpp maa ngi ziar ñëpp ñoom bëgg tout benn ziar baax am na solo le 4 février nan ngay waajal sa diggante ak deux. incha allah ñëw jël si li rek moo daan ko ñibbi point. waaw kii day wax day xaaj rek ba suur ba incha ma cob la mu demee ñibbi incha si kàttanu na bu booba lamb teglante nga xam ne ndaw waaj na de. doole yi bokkuñu de waaw bokkuñu noonu maa ko gën doole fuuf. sa xalaat ngay waxee da ngay xaaj rek. waaw boo ñëwee dinaa la cob de loolu moom bàyyi ko xel. cof bi bu suur waa moom après dina leen dal moom après moom dina leen màndal loolu. ok am na solo ma bàyyi la nga wax ñi lay maa ngi sant ñëpp di woo waa Diamaguène woo Cakala ma Sibassor waaw ñëpp maa ngi leen di bëggee nag jàpp Kër Massar yëmbal benn baraag jàmbaar yëpp maa ngi leen di woo ba arrêt local gaa yëpp maa ngi leen di woo ñoom Xaysara ñoom Bamba mbaarkat yi ñu ngi taxaw nag heure boo ko soxlaa ba loo bëgg ñu teg ko waaw ba am xel dara. woote garaaw woote la garaaw loolu la bu commencé di si sama garaaw Ziguinne Sow Kafountine Kataba ñoom Aliou Baye Fall ñoom ñëpp jigéen làmb yaa ma gën a nekk wax dëgg ñoo leen xaaral pour leen tout di ziar waa boobu nag li wax ne nag seen doom la ñu waaye raaf tamit yaa ma gën a xam di woo gaa yëpp nag ñi si war a jàpp ñëpp ñëw leen yaa ma gën a xam. ayca joxante leen loxo pour grand xale mën ko am bu leen neexee ngeen def nii rek wuyu kaale seen bëri guy gi. les rois des Simpi Assane di sant Maguette Seck maa doon ñëw. ayca da la. waaw waaw lakk liggéey de mooy loolu. maa ngi ñun ñëpp ñun saa yi maa ngi nuyu sama grand frère Daouda di nuyu VMB di nuyu euh, grand Aliou Ngom di nuyu moom yow dama la ñëw loolu si jarul wax. nan pour le 4 février kii nga am nga client de. waaw le 4 février ñu ngi koy waajal comme yenn combat waaw di si woo waa Jaxaay di woo Ibrahima Ndiaye di woo Birama gaa yëpp waa Jaxaay ñëpp nañ génn jàppale seen doom seen rak seen jarwaat guy gi mu ñëw daal la xale dañu wax moo ndox naa la si man wala si xalaatam lay wax rek wóor na yàlla xalaatam lay wax boo xeexee naa la dóor ah boo bëree ma daal la wóor na sëriñ baa ma bas li may liggéey xajul si yow yow liggéeyoo bu la woon xam ne liggéeyoo la ne na mu yaa a nekk booy fuuf ñemewul xotteeg li eh, séeréer eh, nga xam ne yow doo màgget la yow yaa ma man doomi laa kaay si wuyu wuyu Père Thiam wuyu Père Thiam wuyu ma guy gi wax leen kaay kaay ñu waxtaan xam nga la waaw wuyu ma la gal xam nga lan laa bëgg gis ñu lay seetaan fii yëpp sa mbokk ñu naan bëri sérieux jàpp leen ci rek ngeen wax ci respect après dem ñu aci ma bàyyi la nga woote non woote woote bravo maa ngi woo Vieux Mbengue di woo Babacar di woo Daouda di woo Modou Diop di ah, woo Anna Diouf di woo Sidi waaw woo. maa woo gars di woo waa Jaxaay di mel ni Bés Tamba di woo Birame Niang xam di woo Dame Ndiaye di woo ñoom gars yëpp maa leen woo waaw di ko ay maa leen seetal koñ ma fi ànd kaw Kelle bi ñëpp maa ngi leen di woo ñu ñëw jàppale guy gi ñu ñëw ko ma jàppale la daan ko jël ba amul benn werante woo Sia Ibrahima woo ñoom Sioux gaa yi ma leen woo di sant sama waa na di woo sama yaay. combat ba ci gasoo production sax mën na ko def grand combat parce que kii day yaakaaru ginnaaw raay prince ak lu ko wër muy champion boo xamante bi nii bu jógee li koy topp beneen affaire la promoteur yi ko bëgg bëri na bépp promoteur bu ko tëgg bu nekk boo paree sa morom may tëgg pour nga jotaat ko problème lay doon. mu jóge ci mooy presse bu ginnaaw raay presse bu bàyyi si mm-hmm. mu jóge ci victoire bu rëy diggante ak tubaab bu jóoru si ñoom mm-hmm. ayca mbokki presse yi mayal leen ma géwél bi xaalis ayca presse njool mi ana Fils de Balla kaay leen mayal ma Assane mii xaalis yow yaa ànd ak yan bu diis waa kër yan bu diis lay bàyyi ngeen kaay jàpp ci rek buy ma loolu bu leen benn policier benn policier na kaay benn policier na léegi waxatu waaw mais c'est bon mais calmement rek calmement monsieur Thiam. Euh, xoolal